la te club la boo xamante ni mën na la yóbbu sa tour fu la politique mënta yóbbu te effectivement sport moo la mën a yóbbu foo xamante ni yow mënoo fa yóbbu sa bopp. te yóbbu na fa Lat Diop. Lat Diop d'accord offre bi accepté ko ñëw jiite club. mu ñëw jiite club bi di Guédiawaye football club. après li nga xamante ni mooy Alioune Sall muy ex maire bi fi nekkoon. waaw euh, amoon moom tamit yéene pour jàppale ci club bi après si la jël li nga xamante ni mooy stade Ndiarème. waaw Ibrahima Boy. Ibrahima Boy waa def benn convention. jox ko li nga xamante ni mooy club bi di Guédiawaye football club pour ñu fay def seen temps d'entraînement recette bi nga xamante ni moo fay génn moom it mun leen da ngeen koy jël di ko di di ñu ñu leen koy jàppale. d'accord waaw nga taxaw foofu pour nit ñi bu ko comprendre rek day day expliquer. Mhm. bi bi loolu amee yow Baye Tafa ànd na ci bi amee ay dara bëgg nangu loolu. Ah. na dañ koy xolaat da nga opposé woon lan moo taxoon. waaw waaw bi Ahmed Aïdara ñëwee ci ni dafay bëgg a jël stade bi man dama opposé woon. en tant que maire premier magistrat waaw dama taxawoon 6 heures du matin stade Ibrahima Boye la ma fekk parce que man Guédiawaye moo ma ñor quoi ma ñëw taxaw ni Ahmed Aïdara du fi jëlee li nga xamante ni mooy euh, stade bi mais comprendre ma woon lan moo tax ak convention. mais lan nga comprendre bu njëkk bi ba tax nga ne du ko jël. waaw li ma comprendre parce que après defe naa ni toog naa ak Ahmed. Hmm. wax ak moom euh, waxtaan ak moom mu expliqué ma ni moom. jëlul décision pour nangu stade bi. waay dafa jël dafa lay wax ne leen nii dafay teg directeur général foofu ci stade bi pour li nga xamante ni mooy xaalis bi fay dugg ak xaalis bi fay génn mu mën a xam ëllëg suñ koy laaj. tey jii ci mu rendre compte mu rendre compte li nga xamante ni mooy état bi loolu la maire bi wax loolu la maire bi loolu la maire bi waxoon. mu amee ay dara. léegi effectivement bi ma waxee loolu yàlla di def ba ma gis convention bi lenn gën ma metti muy convention Guédiawaye football club waa ñu def ci contrat bi quatre ans mais convention bi dafa concerné woon. li nga hmm. xamante ni mooy association bi parce que Guédiawaye football club dafa am ñaari casquette. acca ñu leeralal. waaw Guédiawaye football club dafa am benn casquette bu ñuy wax association association bi ñu ñëpp la concerné. ñun hmm. doomu Guédiawaye gi yëpp. Hmm, beneen bi mooy dafa am association mooy Guédiawaye pro euh, Guédiawaye pro SA bi boobu euh, euh, kii bi la société bi la société bi nag dafa concerné membre fondateur yi ak ki nga xamante ni mooy président Lat Diop. parce que football du caaxaan. ay milliards lay dugal. léegi nag bi ma gisee convention bi convention bi ñu ngi ci def pour association bi la ñu jox parce que dafa am ñaari compte dafa am compte association bi ak li nga xamante ni moom mooy contre société bi. bis hmm. boo bis boo invité waa Guédiawaye football club. dañu la ko gën a leeral dañu a leeral. léegi nag ci le point actuel xaalis bi nga xamante ni mooy Guédiawaye football club. man dama hmm. am ay information yu leer yoo xamante ni tey xaalis boobu recette boobu duggul ci compte association bi. duggul ci compte association non non ci. Ah man man du ma tuumaal li may wax li may wax su dul dëgg Guédiawaye football club am na lu stade bi dajale muy koppooru stade bi dugul ci compte ay association association association bi moom lañ dénk contrat bi contrat bi convention bi association moo ci nekk d'accord te euh, xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy jël ci ci moom jeunesse pour nag am na ndaw yoo xamante ni barki démb sax gis naa ko suma ay frères yoo xamante ni ñun ñoo yem ni ñu bëggee géejawaay gis naa ñu ciy xeex ak di di menacer maire. mais mais mais li nga wax c'est extrêmement grave ah. non mais c'est extrêmement grave association bu Aliou Sall def contrat bi jox leen ko quatre quatre ans. pour que ñoom ñu yore gestion bi yore stade bi. koppoor yi ñuy dajale foofu ci compte association. duggul ci compte association ci compte société bi la jëm. compte société bi te mu public. Mhm. xaalis public di ko dugal ci compte boo xam ne c'est personnel. compte bi Lat Diop moom la concerné. alors ak membre fondateur yi nga xamante ni ñoom ñooy. ñooy Ahmed Aïdara ñëw na dama bëgg def directeur bu coiffé stade bi téye ko teg ko ci loxoom yéen ngeen bañ. waaw ñuy bañoon mais moment bii de moom wax dëgg yàlla. non non bañoon lan moo. waaw dama bañoon. waaw parce bi ma bañee comprendre ma woon. comme am na am na booy yoo xam te ñi ngi mais lii may wax nii suñ ko déggee. Hmm. ba comprendre ko mais dañuy xam ni ay Aïdara moo nekk ci raison parce que xamalal moo tax moo nekk ci raison. Hmm. tey jii état bi nga xam te ni fay ñëw toog ñu ni jub jubal jubanti la ñu woote seen slogan. mais ëllëg tey suñu woowee Ahmed Aïdara ni ko kaay rendre ñu compte nan nga yore woon stade Ibrahima Boye lan la leen di wax. mais xamul lu fay dugg xamul lu fay génn. Hmm. li mu wax moom waxul ni géejawaay daf leen fay dàq man amet même ba ci coow li am coow lu bees lii. ko téléphone ma ni ko monsieur le maire dama lay ñaan ci jafe-jafe li ma la waxoon moom laa lay waxaat ñëwuma pour nangu stade bi temps d'entraînement bi fa Guédiawaye football club wala am dañ ko fay am mais xaalis bi fay dugg xaalis bi du xaalisu askan du xaalisu benn nit xaalisu askan wi la trésor public la war a dem te li mu wax nii dëgg la. man bi ma ko laajtee laajte waat ko laajte juriste yi dañ ne ma li mu wax effectivement dëgg la mënoo jël xaalis Guédiawaye football club du se forcer mairie bi di ko subventionné parce que club bi privé la président Lat Diop su ñëwee ci club bi ñëwu fi. pour jël xaalisam di ko maye. dafa ñëw pour investir pour may pour pour gagner. d' accord léegi en tant que jamono ji ngay wax mat na tey mooy 2024 ñu ci 2024. Hmm. deux ans hmm. lan moo tax maire bi amoon jafe-jafe loolu mu réussir ko nangu stade bi. ba léegi mënagul ko am lu tax loolu. non non moment boobu moom mënu ko mënu ko woon réussir. lu tax parce que moment boobu ñoo nekkoon parti au pouvoir. waaw moment boobu ñoo nekkoon parti au pouvoir. Euh, mënu ah, nga xam ma gën a xam fii affaire yi. nu a wax foofu. ah mais boobu Lat Diop ah am na benn pouvoir Lat Diop nekkoon directeur de la LONASE. nekkoon ci ginnaaw. Macky ah, mais da am ay privilèges yoo xamante ni soo ci liggéey nag dafa am privilèges yoo xamante ni koy am da am pouvoir yoo xamante man du ko am tey jii pouvoir bi nga xamante ni tey bi ñu nekkee ci président bi ñu nekkee ak euh, gouvernement bees bi privilèges yi Lat Diop amoon wala benn yeneen ministre yi ñun Sénégal lambda bi duñ ko am. <laughs> mais li li ah. mais bu ñëwee seetaan bu ñu déggee dañu mel ni. Euh, Lat Diop nekkutoon ci dëgg wante euh, ki mel ni euh, Macky Sall Aliou Sall di frère nekk seen ginnaaw Ahmed ay ay daram nekk ji maire opposant mënutoon jël loolu même bu néewoon ci dëgg. non waaw man man li ma gisoon maanaam moment boobu moom mënu ko woon a jël. mënu a parce que gars yi ñoo nekk pouvoir ba mais ba tey jii nii. ba tey jii mi ngi ko bëgg a jël mais ba tey bi nga am jafe-jafe. mais bu bees bi nekk tamit <laughs> ñoom it seetaanuñu ko. léegi lan ja ba tey wax nga ne peut-être ne ci ak lan moo tax maire mënut a stade bi. Ah, non mais su dee man li ma laajte su dee ci problème yoon su dee ci problème yoon. normalement stade bi Guédiawaye football club daf ko war a joxe parce que xaalis bi. war waruñu dajale xaalis di ko dugal ci compte boo xamante ni c'est privé lu public moom. waa léegi léegi su fekkee ne contrat bi ci loolu da ci inclus maanaam contrat bi dañuy wax ne léegi gestion bi xaalis bi yépp yóbbu leen loolu mooy participation maire ville de Dakar. waaw mille mille Guédiawaye Guédiawaye waaw léegi bu ñu waxee loolu ci contrat bi fekkee contrat bi moo ko définir nag. waaw même contrat bi amul base juridique. amul base juridique non amul base juridique parce que tey jii euh, li nga xamante ni tey jii mooy mooy mooy alalu euh, askan bi. mais mais mais Baye Tamba mais amul bi amul base juridique. parce que ça veut dire contrat bi n'est pas légal. non waaw mais parce que xam la parce que mënoo jël alalu askan wi lu géej way bokk yëpp nga jox ko benn nit.

ni ñu waxee woon Lat Diop est-ce que ni ñu waxee woon waa Guédiawaye stade bi noonu lay demee est-ce que ñoom respecté nañ ko parce que su dee convention bi bi moo ci nekk xaalis bi ci compte association bi la war a dem mais léegi lan moo tax muy dem ci compte société bi kon déjà Aline Sall su bëggoon lu baax moom it Guédiawaye doxali ñu ko normal loolu nag dafa concerné en tant président Lat Diop ak li nga xamante ni mooy membre fondateur yi Guédiawaye Football Club ñoom ñoom ñoom ñooñu nag ñooñu la ñu war a laaj lan moo tax xaalis waroon dugg ci association bi dem ci compte société bi ñoom ñu ni patt hmm. ay complice lañ te waxuñu ko askan wi. te waxuñu ko askan wi. ay complice ko askan wi. est ko gëmoon ñi gëmoon ñi nga gëmoon ba léegi ñu ko gëm maanaam ñu gëm ne euh, Aliou Sall moo nekk ci dëgg Lat Diop est-ce que. Lat Diop man déggoo la am naa gis naa samay frères yu génne di xeex mais comprendre ñu affaire bi ni ma ko ni ma ko comprendre. suñ ko comprendre woon ni ma ko comprendre. Hmm. mais ñoom dañuy bàyyi xeex bi. dañuy bàyyi xeex parce que gars yi nekkuñu ci dëgg. gars nekku ñu ci dëgg. est-ce que est-ce que tamit ne ñu lay seetaan du ñu wax ne Baye Tafa gis na ne euh, gouvernement bu bees moo nekk jub jubal jubanti moo tax muy wax loolu la jóge ci situation yi métti moo tax mu changé camp dem ci camp camp amee ay amee est-ce que gars yi wax lu mel noonu. léegi ma man fii laa koy waxee. waaw ma waxoon ko man du ma APR Macky Sall la. du APR Macky Sall. Macky Sall laa bëgg Ousmane Sonko politique am doyuma. waaw gis-gisam doyuma. man Macky Sall ci laay nekk ba keroog muy bàyyi politique. Mhm. man loolu laa gëm. ñëwuma pour dem ci gouvernement bu bees bi. Mhm. ñëwuma fi pour ànd ak kenn. mais man nii lañ may yare dëgg bu mu ma fekk fa la may bàyyi su ma tooñee damay wax ne damaa tooñ maa ngi jéggalu bi may opposé wu dama doon opposé wu ci loo xamante ni du dëgg. Mhm. parce que contrat bi convention man maa ci teg bët kenn kenn waxu nettali ma ko dama ciy teg bët. li nga xamante ni mooy compte association bi xaalis bi fa la war a dem. Hmm. su demee ci compte société bi nag du ma défendre société bi parce que société bi Lat Diop li muy am këram la koy yóbbu tey association bi xam nga lan la concerné ci Guédiawaye. Hmm. tey su ñu amul woon président su ñu amul président ñun dañuy cotiser même su ñu amee président nii dañuy cotiser parce que président bi day ñëw indi dix millions pour gagner trente millions Lat Diop xaalisam ñëwut pour mayee ko ci club bi. Hmm. club bi nag gars yi dañu comprendre au contraire soo dem soo demee France. wala yeneen réew seen club yi ñooy defar maire yi parce que tey imaginer Guédiawaye football club bi ñu génnee ci saison bii passé ak bi si topp mais li ñu jaay ci góor jour kenn mënul ko wax ay centaine de millions. Mhm. mais est-ce que am na benn affaire boo xam te ni defal nañ ko jeunesse su Guédiawaye amut te football dañoo dépassé foofu football dépassé na fu ñu koy defalee football mooy defalaate parce que football li muy génne ci alal amul benn sport bu koy génne fi mu ne ci ci ci ci ci moment bii. Mhm. ñaata jour la ñu jaay Guédiawaye football club mais est-ce tey jii sax dem nañ sax defar benn genre benn genre jardin sax ñu ni ñu ni Guédiawaye football club kat ci jour yi mu année bi ñaari année yi mu def ci li mu chiffre mu def daf ci jàppale lii di mairie ville bi. Mhm. lii la ko fi jàppalee. daf ko fi jàppalee benn euh, ay dons yoo mhm. xam ne daf koy joxe pour ay livres. Mhm. wala nangam ak nangam mais loolu amul. loolu amul de. déedéet ah. même Guédiawaye football club mais li muy gagné pendant euh, Lat Diop mi ngi fi bii mooy quatrième année mais mës a def bilan financier. mosum loolu moo gën a garaaw loolu Lat Diop nag bëri na problème bon non non mës def bilan financier Guédiawaye football club amul benn maam xolal li ma lay wax nii woowal responsable yi nga xam te ne ñoom ñoo ko jege yéen yéen mu leen ko à l'époque non dama naan xaalis non ñoo ko ñemewut paa yi ñoo ko ñemewut paa yi ngànk Guédiawaye yéen yéen maanaam jeunesse bi dañ doon charge amee ay dara parce que maire bi nekkul ci dëgg maire bi naa nga opposition euh, loolu maire bi dafa soxor man sax daan wax ne Ahmed man wax naa ko wax dëgg yàlla wax naa ne Ahmed Aidara bu bëgg Guédiawaye daanu. mais léegi nag lan ngay wax léegi. moo nekk ci raison. moo nekk ci raison. waaw xanaa da ngay présenter ses excuses wala. Oh, dama koy jéggalu koy wax naa ko man nëbbu ma ko. man Diouf man laa sant. da ngay jégalu ay Aidara. dama koy jégalu Diouf laa sant. convention bi xaalisu Guédiawaye football club bi demul ci compte association compte société bi lay dem compte société bi nii may wax ak yow président bi magam moo ko yoroon moo ko yoroon mooy signé xaalis bi di génn. Hmm? Guédiawaye football club amul benn am membre fondateur booy teg fii mu wax la lii la dépensé année bi lii la gagné année bi maa leen défier amul kenn ku koy def parce que xamuñu liy dugg xamuñu liy génn. loolu doy na waar. nit ñi ah. ñi dégg na ne léegi lan mooy bi gën léegi lan la ñu war a def. non lii solution bi mooy. ñu jeexale foofu waaw solution bi mooy euh, li euh, monsieur le maire Ahmed Aïdara wax. Hmm. dafa nekk ci raison moom nee na nanguwul stade bi mais xaalis bi dugg ci stade bi. mais ki ñu teg ci stade bi muy encaissé xaalis bi sax moom xamul xaalis bi fu muy dugg. ah moom jël xaalis bi dem versé ji la ci am. kese dem leen ngeen laaj ko jël leen seen micro ngeen dem fekk ko fa. danañ ko def moom xaalis bi muy encaissé xamul fu muy dugg day jël xaalis bi dem versé mais loolu délire la léegi nag Ahmed dafa nii. Mhm. moom Guédiawaye football club temps d' entraînement yi mu fa am. waaw da ko koy bàyyee. yeneen club yi nga xam te ni Guédiawaye daf leen joxoon temps d' entraînement. Mhm. leen koy bàyyee muy minime bi ba ci senior bi ñëpp dañ fay entraîner. mais xaalis bi fay dugg di génn. Hmm. trésor publique la jëm. su amee lenn lu muy jàppale géejawaay mu jàppale ko te situation bi du force. parce que géejawaay du affaire publique affaire privée la. club yi président yi suñ ñëwee dañuy ñëw génne xaalis ñu signé ay contrat ñoom ak man membre fondateur yi. Hmm. wax ne damay am kii day am cinquante kii am trente wala kii day am trente kii am vingt. suñu jaayee jour xaalis bi demul ci mairie bi demul ci askan wi. président bi ak membre fondateur yi ñoom ñoo koy séddoo daa def seen seen poste. def seen poste ñun nag bëgg-bëgg lañ ci am. parce que ñun ñoo si géejawaay moo ñu gënal gaynde gaynde Baye Tafa ak say ak ñi nga àndat ba ngeen xamee loolu am na te nekkut ci yoon porte leen plainte contre Lat Diop. non contre Lat Diop loolu membre fondateur yi am ñemewuñu amuñu. amuñu amuñu courage amuñu courage. yéen am ngeen courage bu yéen. am porté plainte Lat Diop. xam nga xam nga ñun ay supporters lañ. ay supporters lañ tey fi ne su ma demoon tey jii nii damay porter plainte pour nañu président bi wala. daal nga xamante mooy. yéen yéen ñemu leen laaj jóg. non non du naan membre fondateur yi nga ah, xamante ah, ñoom. ay nga naan membre fondateur. yi maire bi ngeen ñeme te yéen warul ñeme maire bi. parce que maire bi shérif la xam nga maire bi du defee ah. dara shérif la <laughs> <laughs> moom. soo ko tooñee xol bi ne kii mën na am na xët-xët mais. d'accord supporters yu Guédiawaye football club dañ leen di wax te club bi ñi ngi woote waat encore une fois. Mhm. ñëpp ñu ñëw jàpp ci. très bien mais ñëpp lañ ci ñëw jàpp même Ahmed. Ah. waxu ne du ci jàpp ah. Mhm. man ak moom déggante nañ du amuñu nëbboo waxu ne waxu ne du ci jàpp. du ci jàpp mais lan lay bañ ëllëg. xam nga Diomaye président Diomaye ak Sonko mi dañoo fawul. dañ fawul de. te ëllëg mën nañu woo Ahmed Aïdara wax de yéen a ngi wax de. ñoo ko wax fawuñu. dem ci beneen point bi.